xeer yi hmm. boo pa boo defee dëkk bépp tali karo gars yi deqi karo yi di ko sànnante non wi euh, euh, ma nag euh, sànnante bi li ko indi mooy dafa am ñu bari ñoo xam ne dañoo bokk ci réew mi te gisuñu seen bopp ci réew mi hmm. c'est aussi simple que xam nga li xew aussi il faut ñu interpréter ko xam nga affaire Ousmane Sonko lan la ci affaire bi déclic la maanaam gis nga tey bu fee fii yëpp nekkoon gaas bu fi yëpp nekkoon gaz boo xosetee almet rek dafay tàkk li xew ci affaire Sonko détonateur la au fait parce que boobu fekk na nit ñi sonn nañu mer nañu confinement bi mi ngi rey nit ñi nit ñi amuñu liggéey chômage la preuve nit ñi bi ñu dalee ci Auchan yi lañ dal mais loolu booy jiite réew da koy jàngat biñ di ko ci Auchan yi taaluñu ko dañu jël ceeb jël diwliñ jël suukar jël truc et cetera jàngat la. góor ñi am na ñoo xam am na bien sûr. Hmm. mais noonu la demee. donc nag léegi ni ñu ko war a jàngate mooy il faut désamorcer la bombe jeune bombe boobu boo ko bëggee dindi faaw nga créer si parce que nag bu mu am nag bureaucratie parce que Sénégal am na fi ANPEJ am na FNPJ maanaam façon organisme boo oh, imaginer rek waaw pour jeune rek def nañ ko ci réew mi mais joxewul dara il faut faire loo xam ni dafay pratique maa ngi waxtaan ak euh, sama benn xarit bu tudd Tahirou Sarr keroog mu ne ma yëre man ko am ah, Sénégal dañu war a def une banque de l'informel ma ne ko am ah, banque boo xam ne da ngay ñëw waat si ton honneur nga am projet ñu jox la nga dem liggéey nga ñëw fay maanaam li tax idée boobu am solo mooy li ma jàpp mooy simplification bi il faut ñu def loo xam dafay simple parce que aussi euh, comme ni ndox muy muy fay lakk kenn du ko segg waaw il faut ñu def loo xam ne c'est des choses simples yoo xam ne saa permet très vite nit ñi ñu ñu occuper leen ñu am lu ñu def ba pare au-delà de ça il faut régler beneen question parce que lii lépp bu ñu ko waxee def ko yéeg wàcc te réglé woo benn question boo xam ne maa ngi koy waxaat ci livre bi maa ngi ko waxaat ci livre bi ci benn page maa ngi ko tuddee à la page 115 une école qui n'enseigne plus école boo xam ne jàngaleetul Euh, góor gi il faut ñu defaraat éducation gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga Corée du Sud euh, ñeent fukki at ci ginnaaw Côte d'Ivoire moo gënoon développé Corée du Sud gis nga pays yu bari yooyu dégg ay Singapour ay Malaisie ay Corée du Sud yaa a cinq quarante cinq ans gënuñu woon développé Sénégal Tunisie bi ñuy am indépendance. ñoom ak Sénégal ñoo tolloo woon lépp parce que Tunisie ak Sénégal seen lépp a méngoo moo tax Bourguiba ak Senghor xarito woon tolloo population même ressource bi ñu am phosphate lépp lañ bokkale. xam nga moo tax Tunisie raw ñu tey ba kenn mënuñu kompare jàng tey Tunisie y a plus de pharmaciens femmes jigéen que góor en Tunisie y a plus de médecins femmes jigéen que góor en Tunisie. problème mu Sénégal boo ko bëggee régler parce que aussi booy gouverner li ma jàpp man mooy. c'est vrai fay lakk gi baax na lool mais bu ñu bëggee une solution structurelle faaw ñu def école buy jàngale xam nga étudiants yi ñu sori woon ci crise gi la xam nga lu tax maa ngi bind fii nii. seet nañ ko ci maa ngi bind fii nii université maa ngi bind fii nii l'université sénégalaise à dépassé le stade de la maladie grave pour atteindre celui de la mort clinique ma jox la ay affaire yu ndaw université. Sénégal moo amatul xam nga lu tax ni ñu bëggee defee université la benn réew àttanu bi may bind livre bi en 2003 université Dakar y avait quatre-vingt mille étudiants. ba léegi pour mille cinq cent enseignants. yoo xam ne quatre-vingt pour cent de ces enseignants yëpp ils sont de niveau B. faculté de lettres nga xam ne dañ ko defoon pour mille deux cent étudiants. mi ngi ci deux mille huit cent étudiants avec quatre vingt cent quatre vingt quinze professeurs mais loolu du jàng parce que ni ñu bëgg a defee université moo dul jàng c'est-à-dire université de masse amul fenn université foo dem ci àdduna bi école d'élite la Barack Obama dafa fay ay jàngam. est-ce que buñ taxawee foofu bëgg a wax ni. waaw orienté ñi am bac yëpp jaaduwul. déedéet kenn war kenn war orienté ñu am bac xam la nga war a def. Hmm. dañu war a def de grandes écoles. Ah, Sénégal il faut ñu jàngal nit ñi liggéey du ñépp a war a dem ci xam-xam ba mu sës déedéet parce que réew moo gis dafa am ñu xereñ lool am ñu xereñ tuuti am ñu xereñul yàlla moo binde noonu àdduna ñi xereñ lool da ngay def compétition parce que écoute moi xoolal sëñ bi àdduna. pays yi dem yëpp dañoo def compétition compétition xam nga mooy lan mooy les meilleurs nga def de grandes écoles yoo xam ne nii lañ fay jàngale dafay soxal développement réew mi nga yóbbu leen fa ñu jàng ko nga teg leen dans les meilleures conditions jàngal leen science jàngal leen technologie jàngal leen éthique teg leen dans les meilleures conditions xam nga ñuy def recherche def innovation ñi ci digg bi. nga former leen pour mu nekk un personnage un personnel intermédiaire maanaam ñi def administration ñi def parce que loolu aussi dañ koy soxla ñi ci suuf nga jàngal leen ni ñuy liggéey ak loxo. xam nga Macky Sall ci yoonu yokkute dafa am benn affaire bu am solo bu mu bu bu mu ci wax mais te loolu bi mu faloo ba léegi gisuma ko dafa wax ni dafay créer nu mu ko tuddee woon sax des écoles de formation professionnelle nu mu ko ah, euh, en tout cas école bi maanaam dafa doon créer dans tout le Sénégal fu nekk dafay créer institut boo xam ni leen rek lay liggéey mooy former les gens au métier. bu fekk voilà ci lu mujj ministère de l'enseignement supérieur. voilà mi ngi commencé def ay centres d'incubation. ci biir université yi. loolu c'est très lool loolu direction boobu la ñu dem c'est-à-dire hmm. dafa am ñoo xam ne au lieu que ñu toog université da nga leen di jàngal ñii ñu nekk plomberie plombier yi France. oto bu rafet la ñuy gaare ñëw def intervention nga fay leen xaalis bu bari ñu am entreprise ñii nga jàngal leen électricité ñi nga jàngal leen mécanique mais xoolal oto yu bees yi xew mécanicien yi ko yor ak école yu bees bi ci nekk tey ak électronique bi ci nekk loolu da koy jàngal nit ñi ñu jàng ko parce que c'est une vraie économie xaalis la tu comprends ñii aussi nga jàngal leen ay métiers comme la menuiserie nga professionnaliser mais xoolal par exemple tey. xam nga ñaata emploi le Sénégal perte ci affaire meuble Chine yi 300000 emploi maanaam ñi nekkoon ci secteur cent mille personnes liggéeyatuñu parce que l' état préfère ubbi frontières yi di jël ay droits de douane ci ay ay meuble Chine. plutôt que tëj frontière yooyu trois cent mille personnes di liggéey Sénégal di fay impôt. léegi teg nañ ci Turquie meuble yi ñu ngi koy importer Turquie. voilà en masse. voilà léegi voilà des problèmes structurels c'est-à-dire réew mi. parce que attention de gis nga la bombe jeune la boo ko différé tey day ñëwaat dama yàgg a wax ni c'est-à-dire ku ma ku ma mësul dégg sax mën nga dégg ma ne leen réew amul fenn réew moo xam ni dafa am ñoo xam dañuy dund rek di dem am ñoo xam dañuy dee rek di dem mënta nekk loolu bu amee rek mooy miracle day am te miracle mënta am tout le donc bu ñu bëggee réew mi jaar yoon il faut ba pare on a une population trop jeune réew moo xam ni plus de cinquante pour cent de la population amuñu vingt ans mais réew moom il faut nga trouver solution pour que jeunes yi seen bopp ci affaire yi et ça man je pense que dans un premier temps il faut. trouver askan woowu ak ni askan wi ndaw ñi ëppee. waaw déséquilibre boobu. ban euh, nan la ko ab état mën a mën a gérer itam ay facteurs yoo xam ne la léeg-léeg mu bett itam état. waaw mais économie boo gis. dañ koy xalaat jëmale ko ci askan ak ni mu bindoo économie boo gis koom-koom boo gis ci àdduna bi. Hmm. da koy xalaat jëmale ko ci sa askan ak ni mu bindoo ba pare ñun amuñu ay population mu nga réew mën ne senegal ñun la 16 millions d'habitants la loolu du population je suis désolé cest que boo demee ci réew yu mag yi 16 millions d'habitants du sax du sax population benn ville bu mag. xam nga li ma la pendant ce temps li ñu mën a def pour absorber loolu dafa am dafa am c'est loolu seet nañ rek mais xoolal par exemple projet mais est-ce xam nga ni projet bi gën ci taaw Macky mooy Prodac est-ce Prodac mos nga lire projet bi mos nga projet bi. Mm-hmm. est-ce que xam nga ni Prodac kese ni ñu ko bindee ci papier bi bu ñu ko defee woon noonu les domaines agricoles communautaires la ndege ni si jàpp naa ni coow lii lépp du am. benn rek moo ciy dox ba ak léegi mooy bu. bu euh, CFA. mais c' est tellement gis nga gis nga président beneen bi bi mu ko gisee bi coow li bareeg yooyu tout ça tout mu wax. Hmm? Mhm. daf ni il est prêt am na koo xam ne ci directeur Prodac yi la bokkoon dafa jël contact moom ne ko projet bi bu ko Sénégal bëggul ñëwul fii ma jox la deux cent milliards nga def ko fii au Bénin. mais càggante googu ci Macky Sall ak gouvernement Prodac bi ay weer la waroon euh, pare ci CFA ci yeneen tund. ñu ngi ci lépp juróom-ñaari ñu nekk ci wëlbateekoo ak te dara sottiwul. non du càggante rek càggante ak scandale financier yi c'est ça le aussi parce que Prodac après gis nga coow la ci am ci xaalis ñëpp gis nañ ko c'est ça aussi le mal africain contemporain cest à dañuy gis défi yi nii. mais def yëpp dañ koy réduire ci ay problème de personne ak problème d' enrichissement personnel. xaalis boobu fu mu jaar. je ne sais pas ku ko sàkkal pexe. xam nga coow li bari na ay rapport am na ci ki naan jëluma kii naan jël naa ki naan jëluma et cetera alors que programme boobu kese kese kese kese bu ñu ko réagi bu ñu ko réussiroon kese parce que programme bi il faut le lire sur le papier parce que ñu bari nañu wax Prodac parce man bi coow li amee laa ko liir hmm. mais programme boobu kese bu doxoon ci réew mi. léegi ni si am na problème yu bari yoo xam ne ndaw si ndaw ñi jànkonte nañu ko tudd ñu jànkonte ak moom bref en tout daal li am solo mooy góor gi. njàng mi lu ñu ci war a soppi parce que moom nga juñu ne am réew am njàng ko ci war a soppi mooy il faut ñu def un enseignement d'élite réew yi dem yépp dañoo def élitisme xam nga compétition rivalité moo bon mais compétition sain. ñu bàyyi pousse bi que àdduna waaw ñi xam nga àdduna ñi gën a xereñ ñi gën a xereñ. léegi ñi yu segg nu ñu da leen di jàngal liggéey. sëñ bi après nga créer leen condition pour ñu ay entreprise xoolal l'économie numérique kese kese kese kese kese économie numérique kese kese la ci Rwanda créé ci emploi te Sénégal kenn gënu leen a xereñ ci économie numérique mais fii dañuy jël économie numérique jox ko ñoo xam ne ay analphabète lañu nommé leen ministre xamuñu sax lan mooy économie numérique alors que y a des pays yoo xam ne ay millions d'emplois la ñuy créer ci économie numérique Sénégalais kan moo ko gën a xereñ tey boo tegoon wifi universel créer benn zone d'incubation boo xam ne uniquement pour internet la ku am xam-xam Sénégal nga incuber jox ko ko ay moyens may gars yi 6 mois nga xam ne lépp dëgg la mais mais mais c'est-à-dire fois da ngay réew bi da ngay sey ba jeex <coughs> non franchement parce que euh, xam-xam euh, maanaam xam-xam bi ñu waroon doxe ci réew mi euh, xereñteef bi ñu waroon doxe ci réew mi defuñu ci lenn. est-ce que Macky Sall maanaam ñun ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ñun ñu ngi ci ay. politique est-ce que Macky Sall Cheikh Yérim Seck euh, kàddu yu mu yëkkati gannaaw li fi xew ak euh, li mu nas ci gone yi daf cee war a boole jël yeneen dogal ci ñi mu teg ci place yi nga xam ni ñoo ñoo war a liggéeyal li mu bëgg réew mi am ko ci yokkute maanaam ci gàttal est-ce que gouvernement bi da ko war a seetaat changer place yi. non d'abord. Macky Sall renforcer ñenn ñi. waaw Macky Sall dindi ñeneen. d'abord discours bi mu def moom la waroon def. loolu il faut le dire. Ah, cest à na. waaw parce que euh, gënu gënu nag ay la yowin suñu kaaraange réew moom lañ ko dénk.